waaw dafa am mbir moo xam ne nii bu ñëwee ba ñu teg ko ci kaw table teg ko ay rapport ndax ñu ñu épinglé parce que bu ñu nee épinglé rapport épinglé du rapport tëj na nit. Mhm. ñu xamaat ko encore bu ñu nee nit ka taq na. taqin googu noonu boo demee ci justice dafa am ñaari ñett yoo xam ne dañ ko ci lim ci ay infraction mooy boo defee faute mhm. ñu ne mën naa doon contravention mhm. mën na doon déli baa mu mhm. doon crime ñett yooyu nag benn bu ci nekk boo demee ci biir administration tamit nit di liggéey ñu ne nit ki dafa juum ci liggéeyam mbaa daf ci def faute mhm. faute bu ci nekk aussi day am daan boo xam ne day tolloo ak moom c'est mhm. pas parce que nit ki def na faute administrative rapport épinglé ko directement dañ ko war a yóbbu tribunal jugé ko déedéet mais bu boobaa kon lan lay jariñ les fautes internes yoo service interne yi nga xam ne aussi dañu nekk dans l'administration war nit def erreur ñoom ñu jël ko corriger ko bu ñu di xoolee que ne bu ñu tuddee un ministre def na ay kii rapport épinglé ko directement dañ ko war a yóbbu teg mais xam nga cas euh, cas kii di euh, Cheikh Oumar Anne moom dafa nekk benn cas boo xam ne dafa jaaxal Sénégalais yi mm-hmm. parce que moom mun nañu wax ne trois kii yu fi nekk yëpp dañ koo épinglé bu si gën a fës moo nekk OFNAC mm-hmm. ñu ñu dem ba mel ni sax moom dafa am benn doole boo xam ne dem ba di menacer justice sax si ay kàddoom. je pense que eh, ma ma yeggali rek. Mm. Euh, muy mel ni comme moom dafa am benn force bu ngand bu nekk si gannaawam bu bañ a wax kii di euh, njiitum réew mi euh, moo koy protéger yéen en tant que apériste ngeen xam ne da ngeen a jaayoon Sénégalais yi gouvernement sobre et vertueux mu nekk gouvernement boo xam ne dafa da dafa Sénégalais yi lu doon jooy tant Abdoulaye Wade yéen a ngeen jàppoon ne Sénégal loolu ngeen jaayoon Sénégalais yi ba Sénégalais yi voté leen kon tey jii nag seen min ay ministre wala seen ay directeur procureur généraux bu leen épinglé ci ay mbir yu leer nañ man dama jàpp ne kii di président de la république dafa war a bàyyi yoon mu def euh, liggéeyam mais pas di protéger ay nitam te dafa mel ni kii di Cheikh Oumar Anne ak Moustapha Diop am na ci dëgg dëgër ci lu taxawee. je euh, pense soxna Betty non ma may ma tuuti ma tontu ci loolu je pense que bu ñu ñëwee tey. par mm-hmm. rapport ak président li mu woote. bi mu faloo fale mu ne d'abord la patrie avant le parti. Mm-hmm. jël ko di ko doxee woote bonne gouvernance of nag googu ngay wax mm-hmm. ñu dañu koy fàttali ko d'abord of nag amutoon dafa am benn commission de lutte boo xam ne moom moo fi nekkoon de la fraude euh, et de de la corruption comme en 2012 décembre 2012 la ñu indi OFNAC et OFNAC bi ko président di indi mooy puy may pouvoir les organes de contrôle ñu am pouvoir boo xam ne dinañ mën di directement la justice. bu bi mais OFNAC boobu mun nañu le cas justice non danga may may ma eggale. le cas de Cheikh Omar Anne danga ma ci dugal léegi. le cas de Cheikh Omar Anne danga ma ci dugal léegi je pense la république président de la république mosul défendre ay nitam. Mm-hmm. président bi mu paree daf leen a falu jël OFNAC mu ne OFNAC teguma ko fi pour ñi nga xam ne dañ fi jóge mais dama ko fi teg pour ñi nga xam ne ñu ngi sama biir régime Cheikh Omar Anne si aujourd'hui moom mu osé ne boog day menacé ci say wax mm. la justice c'est parce que xam na ne am na dëgg mm. OFNAC ñu taxaw tuuti ci moom di ma ci may parce que OFNAC bu defee rapport am ba pare je pense rapport boobu bu ko jëlee jébbal ko ki nga xam ne nii mooy ki muy ki mu laal l'auteur des faits Cheikh Omar Anne bind benn réponse boo xam ne bind na ko kan moo gis ci yéen ci presse bi benn rapport boobu nga xam ne mooy tontu bi nga xam ne jóge na ci Cheikh Omar Anne delluwaat encore ci OFNAC ba fi may wax ak yow ni OFNAC publié ko génne wuñ ko fenn. Mm. aujourd'hui ñu tëbaat encore keneen naa day bindaat beneen livre di wax moom Cheikh Omar Anne osé. jël le ton ne moom pare na te dina ko c'est parce que donc mën nañ jàpp ne kii nii mu ngi ci dëggam. Oh. maintenant nag c'est une affaire pendante devant la justice. te moom am na lu mu gëm am na lu mu xam am na ci lu mu nekk. wax ji yàgg na tam nee na nag dina bind portable yóbbu ko fi nga xam ne fa la mbaxana doone ba donc xel mën na ci dal ñu jàpp ne moom mii kat man j'étais au niveau de la nekkoon naa université moment bi ñuy wax lii naa rapport dafa dugg ak yeneen fekk naa Cheikh Omar université la ma fekk université la ma bàyyi mm. je très bien placé pour que man mu man ci wax dara mais dès lors que moom en personne jëlal na la baton en main te pare na pour dox ci dox ci wax ci je pense que donc jërëtul ñu ciy nekk naa dañuy polémiquer mais le président de la république mosu ko défendre te défendrewul keneen aussi koo xam ne dafa nekk ci gouvernement d' accord mais les faits sont euh, euh, ñu jàll si rapport yi ba tey 2015 2016 2017 dafa mel ni yéen tamit euh, ñu yéen ñu yéen waay PDS dafa mel ni rapport yi tamit laal na leen parce que kii di Sindiély Walla ak ak tamit yeneen ay naataango yu PDS tudd na leen si comme euh, fu mu toll nii euh, problème euh, de bonne gouvernance moo am ci parti politique yi. merci yow ban réponse ngay merci madame Biteye mhm. juste rek nga may ma par rapport ak sama intervention sama frère. Mhm. li mu wax parce que dégg naa ko sànq mu ne am nañ trois pouvoirs dëgg la Sénégal am nañ trois pouvoirs mais soo xoolee sur le plan juridique trois pouvoirs suñ koy wax dañ naan pouvoir électif la nekk ñu sa di def cours mais juste rappel rek tey ñëpp xam nañ ni le pouvoir judiciaire pouvoir nominatif la. xam nañ président moo fa nekk premier ministre am ñoom ñoo ñoom ñoo dogal donc foofu noonu je pense que tey ñëw ñu pour def cours de droit le premier dañuy eh, non je sais que am non amatuñu parce que amatul loolu je sais c'est récent li ma lay wax man je parle par rapport ak pouvoir bi may wax xam nga tey loolu moo fi nekk au Sénégal en quoi le le le premier ministre est aussi dans l'action ou bien dans la gestion du pouvoir judiciaire loolu bëggoon naa nga leeral ma ci parce que man gisuma benn yoon bu premier ministre di intervenir. nekk nokk may ma may ma rek. baara man man euh, peut-être xamoo ma moo tax mais man ren ma mambal quoi man je suis à l'aise mm-hmm. ak mën naa la bàyyi ba suba nga wax après man jël la parole et je vais parler les Sénégalais laay waxal man waxuma ak yow. ok c'est pour juste pour dire que gis nga. Euh, ñii ça veut dire que dañu nekk foo xam ni je pense que tey il munoo défendre munoo nekk l'avocat du diable Euh, vous m'excusez du terme parce que mënoo nit ki wax président de la république jël ay kàddu yoo xam ni bouche à oreille la wax ko askanu Sénégal yi ko fal am si moom confiance jël ko parce que par fal ko à plus de soixante et quelques voix jox ko majorité absolue mu ñëw taxaw gëmloo ne carrément que gouvernance sobre et vertueuse moom laay prôné au Sénégal ne la rupture c'est pas un slogan mais un comportement moo ko gëmloo Sénégalais yi ne je vais personne. ñëw tegal ñu nag mais OFNAC tey kan moo doon incarné OFNAC c'était Nafi Ngom Keïta pourquoi Nafi Ngom Keïta ñu jëlee ko ay activité am parce que dafa jël liggéey boo xam ne carrément c'était une dame boo xam ni vraiment kenn mënu ko manipuler kenn mënu ko jënd amul nit bu amul waroo am njëkk tey loolu la xam ne tey ñu jëlee fi mu fi mu nekk génn ko Sénégal yóbbu ko États-Unis parce que dafa yoroon ay dossiers yoo xam ne tellement que c'était lourd te yu xam ne c'est la famille qui était épinglée c'est la famille Faye Sall on le connaît nañ ko gis nga tey sénégalais yi ngeen di jéem a lëre xam nga mais am na yu gën récent yoo xam ne gars yi ñu ngi ko topp te jusqu'à ko mës a am na kii mi ngi fi ArcelorMittal mi ngi fi Petro-Tim mi ngi fi ay Prodac mi ngi fi y a tellement de dossiers yoo xam tey carrément sur la table euh, euh, dame justice dame di di gëmloo loolu da koy wax ñoo xam ne nekk ñu Sénégal ndax tey waaw euh, juste damay ñëw rek dama pour pour pour ñu bañ a perdre temps rek effectivement yooyu les rapports au-delà waaye yéen tamit tax ngeen si. am nga ñu féetoo si yéen ñu épinglé. xam nga parce que rapport yi c'est pas récent 2015 2016 2017 la. xam nga 2015 ñun 2015 ñun quitté pouvoir en 2012. ah mais avant ngeen di quitté. avant ñu quitté waaw pouvoir laale woon ngeen si pouvoir. xam nga bi ñuy laal bi ñuy waaw te kii si mën a jàpp sax mooy euh, kii di doomu jigéen bu Ablaye Wade Signili Wade moom rapport bi tamit épinglé na ko. waaw xam nga tey. Euh, Béti da nga may permettre ma ma expliquer la tuuti un peu. gis mm. nga tey mooy li ma lay wax ci samay kàddu gis nga ñoom instant yi dañu bëgg a ëlëmal askanu sénégalais yi. non rapport yi moom. non non euh, xam naa bu baax li ngay wax xam nga Macky Sall xam nga kaw def. moo ko def non xam naa wax na ko xam nga tey. Uh-huh. Euh, ñëpp xam nañ ni que carrément que Cour des comptes. Mm-hmm. yoo xam ni dañoo nekk dans l' administration di fonctionner. Mm-hmm. ñu jox leen ay prérogatives yoo xam ne dañu a rendre compte du président de la république. Mm-hmm. président su ñu ko am loo xam ni euh, moom moom mooy magistrat kii moom mu war a jël carrément que. jox ko procureur mais procureur mais Macky Sall moo toog ñëpp toog le président Macky ne am na dossier yoo xam ne sama sama coono laa si teg. Hmm. mais kooku noonu nan nga ko mën a défendre ki ko wax gémminam kooku mënoo ko défendre par rapport ak signal yi. li hmm. cas de le cas de l' ok. Euh, Fesman bi ñuy wax hmm. mais Fesman bi ban année la. ce sont les questions à poser ban année la pourquoi ñu bàyyi ba en bëgg teg sur la table le cas de Ofnac. waaw parce que. Euh, rapport a génn c'est une continuité d'accord nañ. mais dama ni xoolal non xam nga tey pour pour vous dire gis nga tey euh, bu ñu nax nit ñi gis nga le cas de Karim bi ñu ko bëggee éliminer politiquement. Mm. dañ ko jël teg ko sur la taable def si lépp leen war pour éliminer un adversaire politique tey. gis nañ ni carrément que yi par rapport ak li tegu seen ndodd dafa bëri carrément parce que mhm. ñoom sur le euh, sur la gestion financière moom moom sénégalais yëpp xam nañu ni carrément que cuune mosul weesu ñoom si seen jëf yu ñaaw yi ñu jëf parce que tey sénégalais yi gis nañ carrément ni ñu sonnee ah si peñe ménagères yi sénégalais yi ni ñu sonnee par rapport ak sécurité ak leneen ak leneen si biir réew mi da xam ni carrément que réew mi jël nañu alalu askan wi pàccat pàccatal ko ba nga xam ne tey carrément réew mi si boppam mënuñu xam sax la ñu jëmee. d'accord contexte boobu la ñu toll. Euh, est-ce que mënuñoo wax ne réew mi euh, mënaguñu xam ne euh, politiciens yi parce que rapport bi laal nañu laal nañu te ba tey dañuy gis ne carrément dame justice elle a du mal def liggéeyam. comme comme nañu wax kon carrément rapport yi ban importance la am. ak tamit rapport yi def ba mu génnee kii di njiitum réew bu Sénégal. naam sa wax na ko mais dafa mel ni dafay jéem a euh, ëlëm euh, jéem a nax sénégalais yi ne dina fi teg benn commission bu war a saytu euh, rap suivi bi mu mel ni comme waaye cour des comptes ak yéen yeneen nit ñi rapport yu lu ñu jox moom doy ko mu mel ni comme président Macky Sall fu mu toll nii dafa bëgg a nax sénégalais yi rek bañ a fësal lu nekk ci biir rapport bi wala làq ñu féetoo ak ñoom béti man en tant que journaliste boo waxee noonu da nga may jaax ah man damay poser je pense que man damay question non je pense bërki démb ci levée des couleurs le président de la république a été très clair. Mm. devant tous les sénégalais. Mm. daf ne lii nga xam ne mooy rapport yi nga xam ne Cour de comptes jébbal nañu ko. lépp loo ci xam ne war na ci dinañ ko def. Mm-hmm. te li nga xam ne mooy sama gouvernement. ku nekk ak te fam la laale. s'il vous plaît s'il vous plaît bon rek ma jóg. man commission ak ñàkk teg commission xam nga waxi président ja lan moo ma ca soxal. Mm-hmm. mooy que ay nit jël nañu seen temps liggéey nañ liggéey bi ñu ko jox jël na ko au sérieux nee na lépp loo xam ne nii laaj na ko dina ko def bu ci laajee dem ci yoon dina ci yóbbu ñi nga xam ne ñu war a dem ci yoon. maintenant moom frère Bari dama ko dégg léegi. Mm. muy wax ba indi ay amalgam di indi Nafi Ngom naa kenn mënu ko jël. man je ça m'étonne bu ñu toogee tey ba aujourd'hui Nafi Ngom Keita bi nga xam ne tey su ñu demee ba Sénégal di ko xam di ko tudd ci yenn c'est grâce au président de la République moom son excellence Macky Sall bi muy dem di ko tànn di ko jox OFNAC kan la tàggu woon tàgguwul kenn il est de son pouvoir en tant que président de la République mu tànn ki ko doy teg ko bi ñu toogee ba mandaam jeex président di ko fa jël di ko ci tàggu mais sénégalais buy jóg naa lu tax mu ko fiy jëlee mooy saytaane il appartient au président convié naa la benn mission liggéey nga ci ba sa liggéey fii la yem li nga man du yow dong yaa ko man ci Sénégal am na ñeneen ñoo xam ne. mais lan moo ko waral ñoo ma ci a lu ko waral mu ñooñu jël liggéey. parce que liggéey bi mu def moo tax mu jële ko fa. maintenant bu ñu demee ba toog mu ngi wax léegi ay rapport rapport bi nga xam ne moo éclairé Cheikh Omar kan moo ko bind. je pense que gis nga nit boo demee bay wax ci dara da ngay wuti information. ki ko bindoon di ab français nekkatu fi pourquoi parmi tous les sénégalais li fi nekk ci enquêteur li fi nekk ak ñeneen un sénégalais jëlut la l'entière responsabilité. mais vous rapport non nous avons toutes les informations nous avons sénégalais de nationalité française nous avons mais dès lors que nga ne un sénégalais de nationalité française c'est une française non non bu fekkee bu fekkee non tu me parles de la double nationalité man ñi ma xam muy Baara Ndiaye sénégalais benn nationalité laa am et je pense bien bari moom la am un sénégalais boobu gëm nga xam ne Sénégal donc moo ko ñor su bindee rapport man naa koo jàppe du sérieux mais boo demee ba ci biti nga bàyyi ak li Sénégal yor ci ay compétence ñun ñëpp ñu reconnaître nga dem jëli keneen ci biti et Nafi Ngom Keita aussi bu ñu nee kenn mënu koo jël qu'est-ce qui aujourd'hui Nafi Ngom Keita et Pape Alé euh, euh, Pape Alé fan la jëlee ay information yu muy jël di teg ah pourquoi depuis que Nafi Ngom Keita bu ñu wàccee ko ba tey jii nii il a un dent la dafa am loo xam ne nii ñun ay sénégalais am nañu xel am nañu xalaat bi di di gis ni dëkk bi di doxee aussi ñu ngi koy gis. gis nga. d'accord par rapport par rapport ak monsieur monsieur. Ndiaye Ndiaye monsieur. Ndiaye Ndiaye. <laughs> monsieur Ndiaye. Mm-hmm. Euh, bu ñu def amal amalgame. Euh, pape Alé c'est un journaliste boo xam ne dafay def ay. investigateur je pense que le cas de Pape Alé le Pape de cas Alé Béti nga may ma tuuti. non non non daa man livre nga leen métti. may may ma je pense man livre yi mënu ma métti. boo ma mayee tuuti le cas de Pape Alé bu ma sañoon. daa man livre nga fi indi quoi non non may ma rek mais parce que yaa fi tudd turu Pape Alé. Pape mhm. Alé ni mu jëlee euh, propre décision def ay investigation si dossier COUD man mii mënoon naa ko jëlee sama décision euh, en tant que journaliste defee ko sa ay investigation man au contraire moi je me disais que yéen ñu féetoo sa sa ci pouvoir bi. da ngeen war a sant Pape Alé dit nga ne yow mi journaliste. tu as bien dit yow nga ne yow mi journaliste bu fekkoon un journaliste digne de son nom. non non non non c'est un journaliste digne de son nom mais ñu ñu passé euh, page boobu noonu. non non mënuñu passé page parce que xam nga lu tax waxtaan bi fi ñu jëm daf koy leeral. waaw Betty Boné ma rapport. bu fekkee ne nit koo xam ne nii dafa dañu ko xam muy ak neutralité am di journaliste pur et dur. Mm. bu bindee mba ci libre mbaa mu wax ci doxali yi. mais waxuñu mais waxuñu lenn loo xam ne mais s'il te plaît je pense que Pape Ali boo ko gisee par rapport ak ses positions. Mm. et Pape Ali lii du nouveau. c'est-à-dire Pape Ali il est quelqu'un koo xam ne nii il est contre tooge côté. a chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement boo xam ne commencé na di liggéey mu dem taxaw ne jàpp ne mooy ki ëpp ñëpp xam-xam mooy ki war a wax ci lépp tooge ne encore di compte de sànni ay xeer c'est des questions yoo xam ne daf koy def ci korom baa mais yéen da ngeen fàtte da ngeen fàtte je fi nekk nga te plaît nga may ma éggale de Pape Ali dama ko bëgg a évacuer man je parle yàlla dafa teg yow doo évacuer man maa évacuer su mu demee bay ñëw wax ma leen mën a déglu ku mel ni Pape Ali gis nga doomu aadama bala ngay digle ca ngaay day fekk nga set am na ay nit ñoo xam ne nii au Sénégal waroon di leen permettre sax ñuy taxaw devant l'écran na dañuy wax di joxe ay leçons de morale ñun Sénégal la ñu dëkk bërki démb li xew ci couloir de la mort bu université Anta Diop yàggut. loolu c'est ça vie privée c'est ça du ma vie privée di ñëw encore naa dañuy bind ay e. livre qui vous dit que moom bi muy dem def ay révélation yooyu mu ngi ànd ak sago donc il y a si sàcc wàllum ay deniers mais quelle est la valeur juridique des écrits de Pape